Euh, ci biir réew meeg bitim réew mbokk yi xam ngeen ni tey jii nag ci ndigal sëriñ ahmadul Mustafa, mbàkke xalifa cheikh mohamadul la amal set setal bi nga xamante ni mooy bale daara xudduus mbalem wàccaayu màggal ak daara xudduus di bis bi nga xamante ni ci la ko tedd ki di cheikhul xadim fanaan seewoon ci dëkkam bu sell bi di Touba su masaana ñëw at mu jot Cheikh mi nga xamante moo ko njëkk da daan woote ngir ñu setal dëkk bu sell bii di Touba dige woon ci ay dige yu rëy ci setal le moom itam daan ko tàmbali daan ci daan ko ubbi ci cosaan moo tax nag itam ñu ñëw di xeencu bërëb bi Cheikh Mouhamadul Moustapha yi di xencu itam lenn ci jeexitali Cheikh Mouhamadul Moustapha ba tax na tey ñu ñëw fii ci kër Serigne Moustapha Diop sénateur moom itam am yenn ci bagage yoo xamante ni. donn na ko ci kilifa ya ñu yor ko di ko saytu ci bokk ci loo xam ne day symbole bisu mbaleem tey jii ca mbaleema Cheikh Mouhamadou Moustapha daan woote ak jëwriñam yu mag yooye ba tax na kon sées bi ñuy jàkkaar lool ci sées bi nga xamante moom lañ nekk euh, di ko saytu di ko euh, lu ñutu ñi ngeek Njaaña soxna Njaaña lan nga ñu mën a wax ci sées bi ak loo ñuy fàttali comme que fekke woon nga jataayub Cheikh Moustapha su ma saan toog ci sées bii nga xamante ni moom lañu nekk nii di ko euh, saytu taarixam ak cosaanam. ban fi nekkee fii si kër gi ah yaay Boussa Fall. ma doon maami Fallou si la ke mu taar si la moom man fi man maa man ak ak luuta bokkoon di yaari gone mm. ku ne bu ma bootee xujje andi toog. lu te boot maam bu safaa la ñu toog nu dend Cheikh Moussa dañu koy séex kii toogee ci giwet kii toog ci giwet nu daal di toog ñuy waxtaan nuy fekkee ke ree rek xamuñu dara boogoon nañu ndaw lan loolee nag sëñ Mourou Sa bëggoon ko lool mu neex ko lool man lu ne defal nañ ma ci wax dëgg yàlla fu ne teral nga ba teral teranga bu ne teral nañ ma ko ci te man ndax man sama yaay ma joxoon xujje sooda muy boot xujje bu mag yi bi mu safaa mii ñu andi ma fii ci dëkk bi dañ ma fi indi dañ maa fab rek teg ci ko wata ba xaw ma ca dara ba ma nekkee fii ci ko war sëpp ma ca wata ba ba ma andi ma suñ ma ruus saa buñ daan bay penc mi ko liggéey dara suñ buntu kër boobee moo doonoon ab toogukaayam siis bii lay toog nun nu boot suñu gone génn ci buntu kër bi dikk toog kii toogee ci géet kii toog ci géet maa maa busa maa yóota yóota di boot busa faal may boot xujja maa ngi busa faal nu bokk fi ne léegi sëñ bi bëgg lu mu neex lool dina ko waa waxtaan ak laaj rek la moom duñu ko wax si xamuñu dara sax boo waaye moom da koo neex rek loolee nag moom neex na lool nuyu itam bi ma toogee ba mu wii nag mu ne ah ndeke noonu lii lañ ñu si bëggaloon lii de baax na lool yàlla mi nga xam ne moo fi bàyyi nag moo ma fi bàyyi ba léegi man ma bokk ci wut boobee waaye ñu ci ba nekkatuñ fi waaye nag maa ngi fi ba tey te maa ngi si ëtt bii ñu ma sëppee woon it te dañ maa waxoon rek sëpp mu ci bañ ba ma bàyyi bu ñaan dénk yor na muy 46 booba gone gu ndaw laa rek dañ ma ne cas rek ma sëpp ci oto xaw ma ca dara maa ngay ree rek dañu indi fii dañ maa ne war fat di cëpp rek fi kanam fi mu bàyyam moom. ndax fàttali ko lenn ci suñu wax su toogee ci saison ah loolu de xam nga ne waxe gone moom waxe mag moom yooyu wax dama ko mën a jàpp sax ba di ko xamee noonu xanaa di bëgg lu baax rek bu ñuy liggéey lu a soññ ak a def leen lu baax ak wax liin lu baax rek saa yi moom lay wax bu ko waxee nun nun daan ne fanax toog na ci yàlla duñ duñ soow duñ def daal dañ toog rek yor suñuy rakk bisu mbale bi la ko daan def bu ñuy bale waaw bale la woon ndax boo day bay penc mi ak sénku gu mag daaneen si buntu kër ba sénku googee bu sëñ Modou Moustapha jógee Daaru Xubóos fa sénku ga lañuy wàcc lay wàcc si ñu génneel siis bi tey teg fa ñun ñi day gone seen ca biir kër ga nu daat daw ku ne boot sa rak daw falax falax dikk toog bu sa ko xujjee toogee ne ma toog nii siis bi mu ne noonu ko siis bi yor yaa naay bii ak itte yi. waaw kon lii daal nga gis mu Moussa. ah waaw daana ko yor daana ko yor pour toog rek di teg ko di itam yor si si garab bi si ron garab bi rek ne fi léegi nii liggéey bu ñu fa weesoo ba xam ne jàll jot nañu door nañu ne ñoo ngi jàll si wàlla ñun ñii ñu fee ndiwoon ndax nu toog fi moom waxtaan rek ñun boo lii sax faa gudd ko ci ndax boo am muy gone ndaw dañu doon boo nu bor suñu rek rek dafa sëñ bi nu fekk ko fa bu ndee bu soriwutit ba mel ne fii te jaxate yi dañ cay topp bu ndee fu mu toog mu toog fi wetam

ñu jox ko ko mu yor ko daanaka yor ko rek far bay mu daam ma ko fa tax di nekkit ñoo ko bokk mel na maam mii waaye nag boo sama yaay moom du ko régalee rek mu def ko luñ ko tere mu bàyyi ko même ñi ni gone ndaw yi mu wàllu na ko rek xamuñu dara waaye lu baax rek lan bëgg lu boobu xamewuma ko woon nii sax nag bon mu gën fee xam-xam bu gën fee yaatu waaye xamewuma ko woon noonu am na ci lu bari lu ma xam waaye da ci am lu ma fàtte am ci lu ma foogu doon ba du ma ko xam ne woon waaye noonu ñaan rek jàmm te ñaan ngeen gudd fan sa rakk ji gudd fante yàlla jox ko njabootu jàmm ak yéen boole ko ñëpp ci doole sëñ Tuubaa maa ngi koy ñaan Seex Alxadim mën na ko am na ko sëñ Mourou sa am na ko mën na ko moom rek lañ koy ñaan buñ nee kilomètre ban daal daw dem ban mënee liggéey buñ nee kilomètre nu daal daw dem man mënaguloo liggéey it fu ñu teg siis bi rek mu toog fi tam di di di reeka foog suñuy rakk loolu dañ doon def. sëñ Mourou Moussa ci jëmm daa góore yi woon. ah waaw moom kay. civilisé mën na sañse. ah daraa yu jekk a jekk <laughs> waaw waaw loolu la man sañse bu jekk toog. ñun ñuy liggéey ngay liggéey noonu gone la tax mën nu dara dañuy dikk rek si duñ booloo toog ci benn géet kii toog ci géet kii toog ci géet rek ñu dend sëñ bi na ci digg bi di nu rek ndeysaan boobu moom dafa baax te lewet rek te baax ñu <laughs> ne dañ koy laaj ka wax bu ngeen def naa nga mbaa yi la ngeen defi woon ah fu ngeen neen ndax bëgg lu neex rek. kaalam googu ndax li ko daan di baax ah ah kaala gi du du du lu bari ba bu dañu da koy gàcc comme nii ma def sama kaala gi rek lu bari de sëñ bi koy kaala rek lu dugg ñaan rek ngeen yàgg fi loolu te da ko wér te na ci ndigal te it ñoo bokk seen mel na maam rek ni ma la wax soo de sëriñ seen fan ko yur moo ko Moustapha ñoo ko bokk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 ne ko sëñ Modou Moussa mu ne ko mu ne ko nanga nga fexe ba yóbbu ma Touba te bu ma ab tubaab tiim ndax boo sàgganee ba ñu yóbbu ma ca seen réew yu soro yooyeet kuñ fa dencati euh, da da texe kon nag fexeel ba yóbbu ma Touba sëñ Modou Moussa Mbàkke daal def loole lépp ànd kook euh, sëñ Basiiru bi ñuy gasaay bee tam ñu ne ko tubaab yi jox ko dat boo xam ne bii ni ko léegi fo fu fu fu fo gas bi yem rek teraay bi àggutit fa lay yem sëñ Modou Moustapha Mbacke ànd ak sëñ Basirou Mbacke borom taar baag mbég ma ànd ak sëñ Modou Moustapha Fall mi nga xam ne mooy taaw maam Cheikh Rahima Fall sëñ Basirou moomee Mbacke mu mag ma fu fu ngas mi masa àgg rek ñu sempi baas bi dem samp euh, samp feneen mu ànd ba moo tax nga dégg ñu naan Moustapha Maggi Bass sëñ Modou Moussa Mbacke day ma gisuma ko waaye rakkam yépp a ko bëggoon rakkam yépp a ko bëggoon ànd ak del nit ku ñemeeg njaboot la woon nit ku dal la woon nit koo xam ne boroomu fit la boroomum xel la boroom ak dal la ba rakkam yépp a ko bëggoon rawatina nag sëñ Basirou Mbacke mi nga xam ne dañ ne sëñ Moustapha sëñ Modou Moustapha magi bas raay boobee bi ñu koy def ngas ma àgg na lu yàgg taddaat ba ko tubaab bi joxoon ak si wu ca date boobee ñu ko tubaab bi joxoon ne ko foofu raay bi eh, ngas mi yem te raay bi agsi wut fa lay yem sëñ Modou Moustapha Mbacké gas boobee raay bi ak na lu yàgg te date ba jotul mu ànd ak ma ma ma ak sëñ Basirou kon nag yàlla na ko yàlla ak yenente bi ak Serigne Touba fayal no maa ngi fii nag ci kër Moustapha Diop ndax sëñ Modou Moustapha Mbacké boromuk dal la woon boromuk fit la woon moom xel la woon lépp loo xam ne lii sëñ Touba de ko bëggoon ni sëñ Modou Moustapha Mbacké def na ko ba mu àgg man mii nag mën a xadi kon tey maa ngi fii ci kër Moustapha Diop doomi Serigne Ousmane Gabon ma sëñ Touba jëlee woon Gabon. jërëjëf soxna Njaaña leeral yi am na solo delloo nañu cosaan delloo nañ ca année 40 ya ginnaaw ba nga xamante ni bii ku tedd ki di Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul tànn dëkkaal ji ak boromam. ci 27 Cheikh Moustapha toog toogaayam toog jotaayam waaye itam toog ab diir daa woote ñu koy fàttali di fàttaliku itam bis ba nga xamante ni ci la fanaanse woon ci dëkkam bu sell bii di Touba ci nekk bis ba nga xam ni moo gënal ci ay bësam ba ko doon ñaan suñu boroom loolu yi nag moo tax su masaana woote bisu màggalug daar xuddus di suuna muharram bay waajal bis ba ci set ak set sellal sées bi ñu gis nii ci la daan toog waaye li ñu gis nii di jaasi jiitam nee na soxna si ne su ko masaana toog ci sées bi dana ko daan teg ci wetam nga xamante ni da daan firndeel lu bëree bëree bëree bëree bëri rawatina ak njàmbaar rawatina ak njom rawatina fulla waaye itam rawatina fit boo xamante ni lu ñu ko wax ci Cheikh Moustapha amoon na ca moom waaye itam liggéeykat la woon jaamukatu yàlla ndax kii kuy nekk ci àll daan nga ko yor ngir ngànnaay sa digganteek rab yi kon Cheikh Moustapha yàlla ñu ko yàlla fayal waaye itam lii jumtukaay la boo xamante ni da ko daan yor ca yaakaar naa jumtukaay la bu am solo kon mbokk yi lii ab gëstu la boo xamante ni amoon nañ xemmemteeful indil leen ko ànd kook sëriñ Moustapha Diop mii nga xam ne moom lañ gën a xam ci sëñ Moustapha Diop sénateur ca muy léppi Daaru Xuddoos waaye itam ànd nag suñ sëriñ ba tey sëriñ Maam Mor Kayre di sët ci sëriñ Mor Kayre sëriñ Adama si nekk nekkaloon ci caméra bi seen mbokkum taalib Moussa Diop ci présentation bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér. te bul faale ka wuy see farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha